yàlla suñu borom gën koo dimbalee ci ci kanamam xamal ko xamal ko ni ne ko sant naa la gërëm naa la ndax cër bi ñu ko sédd ci boppam ndax léegi mën na seet weesu lépp lu muy dugg yëgal na ko te loo ko caaw mu def ko ca loolu sëñ bi sant na ko ci digg boobu ci loolu diir moom fi nekk tam jëpp yi te jox ne masa ko ko wax tam jëm ci dëkk bi wala mu jëm ci njaboot wala ci taal bi lépp luñ ci man def na ko luñ ci mën tam jéem na ko ba sëriñ bi xam ne ne dem na ci def kàttan kon nag sëriñ bi nee na wax na ko kàddu ba léegi nee na ko dégg gi ma ne dégg ko dénkoon sëriñ Tuubaa daal wóor na ma ne lii nga moo na ko ni loolu nag jàpp na ne kenn waru ko si kon ñu ngi koy sant ñu ko gërëm di ko ñaanal ci mboolem li nga xam ne mas na ko ba defal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi wala mu defal ko sëriñ Tuubaa jëmal ko yàlla ko ci sëriñ Tuubaa fay lu ko jox tam mu jëriñu ci àdduna jëriñu ko abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew